maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp turu Cheikh Sidi Mokhtar di jiital ci nuyoo boobu sëñ Mourtala Amar bi nga xam ni naam ci kilifa bi waaye nag bés bii mooy ki ko initié woote ko ba mbooloo bi daje fi kon moom mooy ki dajale mbooloo kon ñu di ko jot di nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ak i cantam Khady Diallo ñooñu ñëw nag maa ngi ànd ak Serigne Khadim Bouy Serigne Moustapha maa ngi ànd ak Serigne Mar bii tam maanaam mën wax ni Serigne Cheikh Abdou fi leen ñu naa jël kàddu ci. waaw ndax kumpulewuleen nii guy bind mooy Daaru Xudoos Daaru Xudoos mooy guy bind sëriñ Cheikh Atou Mbaye kàddu gi nga xam ne moom la ñu waxoon dafa wax ni bu ma dee jël kàddu du jël kàddu ma ne ko jëlal kàddu man ñoo dee kon loolu dafay dafay firnde ci ni mën naa wax ñun ñaar ñoo teewal sëriñ bi kon ñu di la jot li nuyoo sëriñ bi bu baax di nuyu sëriñ Mahamadan bu di euh, ko jot li nuyoo sëriñ moom itam mën naa wax ni ak teewaay doy na sëkk teewaayu sëriñ ndax diggante sëriñ Mourtala mi ngi xam ne moom la ko dundee mu jàngal la yar la mën a mën a àndal ñëpp ba mën a woote mbooloo ko dal nii teew fi ngay jiite yónnee woo ci kenn paas na ko dikkal kon sëriñ bi daf ne seere lay doon loolu yi nga xam ne sëñ Mourtada ko def ci te def ko ci ñu bari na ndax maa ngi fàttaliku euh, jàkk ji mu jëkk ji ci Touba ku ñu wax Moustapha Sarr la wax ne ko dama wëral noonu na ma wëri ñu dama wër li ma wër ba gis ma euh, bu jullee gee ba noppi lay lay génn ci jàkk ji continuer dem une heure léegi nag une keroog bu ñu jullee gee ba pare ba mu ba mu ba mu defee ba mu defee ay baax yàlla ba noppi dafa gerte bi mais ana doy nga Abdoulaye ci ndax ñëw ñu ne ko waaw ma ne ko maa ngi mu ne wëral ca gannaaw bi ñu duggee ci néeg bi Moustapha Sarr moom moo fa nekk ak tudd Modou Fall ak am na keneen pour ñetteel wëlis bu mu laaj bu xoolee la ñu xool du ko gis mu delloo ko wëlis bu mu laaj du ko gis mu delloo ko ba mujj ñu dugal boppam génne leen wëlis jël coow këyit jox ma ne ma waaw sàllaaw day këyit bi boo ko dee jëfandikoo subaa ngoon yàlla bi yore ndimbal moo lay ji daal di may wax ne ma xam nga lu tax ma di la ko jox sa bàyyi de dama koy gane ji ca toolam yu bees ya mu boolee ma ak yow buñ dikkaatee ba ci kër gi dafa am lu ma wax loo xam lii fukki at ak juróom-ñaar la ci ren jii nii ma lay jox lii waaye mu ni ma lay jox daal di dafa wax ne sa day eh, bi mu ko tegee ci buntu buntu la ma sa am ci moom lu ko naqari sa ndey tëb ko yàlla ko teg ma lay jox kon kooku fu fu moom war naa feeñal lool ndax jëf la xam ne ñëpp teg na seen bopp kon sëñ Mamadou ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi nuyu mboolem kilifa diine yi nga xam ne dañoo ñëw teew ci bis bi moo xam ne dëkk ci Kajoor wala ñu ko wër di nuyu bu baax euh, maam Thierno Diop di ko jot li nuyoo bi nga xam ne. mooy ñu ngi woo président de la République bàyyi ko ci Cheikh Sidi Mokhtar ak i cantam ak i ñaanam buñ ko jaaralee ci moom moom day toog waxtu wu bi toog lii nuy wax mu di ko dégg kon buñ ko jaaralee jitaay bii tey dafay mel ni seedal kon maam Thierno ñoo ngi lay jox nuyoo sëriñ bi ak délégation bi ànd yëpp ak ak ak i cantam ci président du ma weesu loolu nag ñaare waaye sama demee nag wax lii waaye nag ñaare man du ma ko weesu foofu rek laa yëg ndax nuyoo ak nuyoo xalifa général de Mouride ak ñaanam ak cant doy na sëkk boo seen muy li mu wax léegi xarit di suñu lépp wax dëgg yàlla muy lu yàq am na màggalam goo xam ne man ak moom ak Macky ñoo bokk benn fauteuil bu ñu toog ba ma jëlee kàddu la ma waxoon sax bu ma njëkk ndax dañ naan daa toog tey moo tax mu wax loolu yàlla xam na daal Moustapha mais it xam na waaw ndax bu nit nee ci nguur rek loo wax ñu ne ah nangam ak nangam te ñun moom sëñ mooy kii ñu defar ba noppi kon nag ñuy nuyu Moustapha Cissé Lo baax ndax kat ma nga nee bu neexee man la sama xarit bokk ma ñi nga xam dañ daan diw sama xarit bu naqaree ñu taxaw fee bu neexaat ñu si man du ma ñooñu man su may engagé damay engagé su sumay taxaw damay taxaw ndax yàlla yooyu yëpp te li may wax ma nga ne xam na ko kon ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu préfet Makan Mbengue di suñu xarit bu yàgg ca Mbàkke nekkoon fa di mat ko sëkkitam wax dëgg yàlla bàyyi fa ay taas ba du ma wax du ma wax sax euh, taas dama naan bàyyi fa ay rëdd yu yu yu fës yoo xam ni buñ ne woon dañ ko fi indiwaat suba du yàq nelawi kenn loolu nag doy na sëkk ndax jëlee nañ la nekk nga Touba di fa liggéey bañ jëlee la fa yóbbu la Tiwaawan nga di fa bëgg a am juróomi at nii loolu war ñaari dëkk yooyu kuñ tegale affecté la ci jëlewuñ la ca muy bëgg a mat fukki at ñëpp xam na nga mat li nga doon ndax dëkk yu neex a nekk la waaye nag yu naqaree nekk la ndax mënees na faa defaroo mënees na faa yàq administration am na fa baat de waaye nag leneen nit nag am na fa baat ca suuf kon ñoo ngi lay ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu Serigne Fallou Fall di nuyu Alla Sylla di nuyu adjoint préfet di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne dañ fee teew te teewal fi nguur gi euh, sëñ Mourtala comme ni ma ko waxee woon kaddu gi ma yor nii mooy kaddu Serigne Cheikh Abdou mi di sama rakk nangu ko it tamat ko sëkkitam nag te yéen ñii fi toog ñëpp ngeen xam jikkoom xami jëfam xami waxam xam léppam ku ne man koo seere ci kon ki nga xam ne moo yor li li li tax yëf yi yàgg fu fu ñu bëgg mu yegg fa mu yàgg fa ak ki nga xam ne balaa kenn def dara da ngaa wax ak moom ci màggalu Tuubaa ñoom ñaar kon kenn ku nekk xam na ne am na cër yu leen sëñ bi jox bu leen sëñ Touba ñi seen maam jox tañ matal ko sëkk itam ndax bañ ca nekkee ba nekk ni kenn musta kenn musta kenn musta dégg yëf yi ñàkk yegg fi mu war a yegg du ma wax ñu def ca lu ñu war déedéet dama naan mu mu ñàkk mu ñàkk a yegg fi mu yegg kenn mus koo dégg ci kon nag ñun ñëpp noo ngi àndandoo di la naa maam Thierno bu jëlee kàddu dana am ndax du xam ba président lay wax ne moom la fi teew wala si si si Mokhtar la xanaa wala mu mu ci sonné leen ñoom ñaar bu ko defee ñi ñi ma fi teewal bu waxee ni ñi ma fi teewal rek wax ji moom ñoo koy sa doom ji di nuyu Serigne Moutala ak ak ak ñoom ñëpp sa sa doom yi fi teew yëpp di waa kër Serigne Goumba. ndax sëñ Gumba ñun ak moom la woon démb ak bërki démb ñun ak sëriñ Fàllu woon démb ak bërki démb ñun ak yow la woon itam ci biir kër gi waaye ci biir kër sëñ Mourtala itam fii sëñ Sidi Mourtala yabal nañu fi def waaye ñun duñ fi gan dama daan dugg ay saret benn néegu ñax laa yoroon di dugg saret bi yenn si fii ci kër Ndongo Diop gii ak Mor Diop yenn saa yi sax dama daan yor ndànk dox ba di doxante noonu rek ba far dugg ci biir kër gi bu may dem ñu soog maa takkal sore li fii di sore sore am njogomaay ñu am ci man taxawaay bu mat sëkk sëriñ Gumba am ko ci sëriñ Fallou am ko ci maa ngi fàttaliku sëriñ Fallou yoon bu ñëwee ba njogomaay yàlla dogal ko am lu jësik am am am ku mu fa xam pooga ni ko ko yóbbu ci kër gi mu ngi déedéet kër gu lenn lu ñu tudd sëriñ Touba du ne ci ab dëkk may denc sama dara di ko dénkaane feneen fu ci sëriñ Touba ndax sama jëm gi sëriñ Touba fii sëriñ bi yabal nañu fi waaye ñun duñ fi gan duñ gan ci sëriñ Bumba duñ gan ci seen Fall duñ gan ci yow seen doom yi ngeen fi bàyyi duñ gan ci ñoom ndax lépp loo xam ne war ngeen koo def seen te te te amu leen jotug toog it ñoom ngeen koy def ci moom ñu def suñu njaboot gi ñu dajeel itam ndax bés bu ne ñu ma gis nañu leen bërëb sàngam doxee nañu nangam doxee te loolu lépp seen i jikko la rek ndax kenn du maye loolu kon nag sëriñ bi ndax wax ji waaye lu mu gudd gudd daal du génne ñaan ak cat di nuyu ñi nga xam ne Abdou Lahad Ka ñoom la yabal ñu teewal ko fi muy ngañ ak maam Cheikh mi ak mu ak ak ak ñi ñu àndal ñëpp di nuyu mu wax loolu itam di nuyu di nuyu ñëpp daal. délégation sëñ Bass Abdou Khadir waaw sëñ Fallou Bissou moo ko jiite waaye ñun bu ñu teewee rek. mooy mooy teewu seen bés waaw teew suñu teewaay mooy teewu suñu bés ndax li ñuy def moom lañ koy def ndax moom la sëriñ bi ni yaay samay bët yaay samay làmmiñ yaay samay loxo yaa may làmbal yaa may xol wax ko loolu lépp kon lépp loo xam ne waroon na koo def jotiwu ca mën nañ ne loolu loolu lañ def kon bu ñu teewee rek mooy teewaay fu mu teew mooy teewaayu sëriñ bi kon sëriñ baa ngi seere ngërëmam ak ñaanam ak cantam du ko jëmale ci mboolem njabootu sëñ Mor Fall te tey jii yàlla teg la ci boppam njaboot bi ndax kat ñun damay wax ne fanweeri at ak juróom defe naa ñu ngi koy bëgg a am fii ci Njoguna kon nag defe naa fii am na loo xam ne xam na te cant boobu kat bu dul woon ak taalibe bu dul woon jëf bu dul woon dox ak wax ak rafetal boo xam ne da ngeen koo nekk fii ba sëriñ bi xam ko sëriñ ko wax nun ñi duñu ko wax ndax wasaynaa ilaa bimaa alimnaa ñun li ñuy seere ci yéen mboolem ñi toog ci tànt bi di di xam nañ ñu ne wax kon pour bañ a guddal ñoo ngi seere mbooloo bi toog fii foofu waaye mën a jëm cantu sëriñ bi ak ñaanam ci njaboot gi te nga nekk ci bopp njaboot beneen bi ci ma di ko jeexale mooy ni ma koy faral di ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla ak liggéey ak déglu ndigal ak booloo nekk benn te bañ a bokk ci ñi nga xam ne bu sëriñ bi nee kel ministère bi jëpp ñu taxaw ci mbedd ministère bi daa a bu sëriñ bu waxee ñu ne ña ñoo ko waxaloon nangam ak nangam sëñ tubaab du du du bokk ndax sëñ Sidi Muxtaar buñ toogee nekk sëñ tubaab daf ni sëñ tubaab ñëw dugg ci sama jëmm ji ba jeex tàkk ba kenn gisut te moo ko wax ci laa mujjee kenn waxalu te itam jëf na fi jëf yoo xam ni firndeel na lool ndax jumaa jee ca Dakaaru de ku ne bëggoon na muy yow ku ne bëggoon na muy yow sag waxuma sag la ci yoon muy mais sag la ci lislaam boo duggee ak yoon tiim Dakaaru tiim jumaa ji ni mu def da xam ne lii sagub lislaam kon loolu ku yàlla dogal mu jaara ci yow kenn gërëtul ni kenn gërëtul ni Sëñ Tuubaa mbedd Touba yi képp ci jamono ji ñu toll booy dox Touba mbedd yi boo xoolee mu mel na ko sëriñ bi na ko kenn ku nekk xam na ni ku dul sëriñ lool loolu ak yeneen ak yeneen pour bañ a guddal moom daal ñoo ngi digal nit ñi naat nañ ci ku joxe sa bopp joxe say doom balaa nit sëy yi yow lañ naan maye ko balaa bu faatoo dañ naan ba leen téye du sëñ bi daa bis sàngam nañ koy saraxal sëñ bi koy wax yooyu yëpp nit ku ko def ba pare bu la kenn influence nga di ca génn niñ lay influence nga di ca génn nag ñi nga xam ni demuñu te bëgguñu ko def ñooñu moom kenn du leen dégg demuñu bëgguñu ko def seeni jikkoo yàqu te jikko bi yàqu ji lu yaatu la suñu jamono ji boo ko desee te nit jaamu yàlla mut a baax mukk te du ni daa defar jikkoom ba pare ndax julli war na la woor war na la génne asat war na la waaye loolu lépp boo ko defee ba noppi te defaroo sa diggante ak nit boo lépp du jariñ dara ndax mën ngaa am julli yu dul jeex am koor yu dul jeex am asat yu dul jeex am sarax yu dul jeex waaye am nga àq joo amee nit ñi joo xam ni ëllëg àq joojee dañ koy jël di ko fay nit ñi di ko jël di leen ko fay eh, sa julli yëpp sa julli yu bare yooyee nga xam ne am na ko la jox xaalis sax ngir ni da ngaa mën a jullee nangam ak nangam ndax léegi fi ne dañ naan diw moom du wa waxtu ne mi ngi yor kurus gi du def nii du def na mais sëñ diw nañ xool moom digganteem nit ñi keneen ku mu doon itam ngay doomu aadama nañ xool sa diggante ak nit ñi damaa wax ni ëllëg man ngaa doon ci dàq julli dàq génne asaka dàq woor dàq euh, def sàkk sara dàq dem màkka nga dem ba yomal xiyaam mboolem yooyee nga doon def la mu bari bari nga amee ak sa diggante ak nit ñi ci sa jikko ju bon joo am àq ak nit ñi doo leen waroon a fay su ñu woolee dañ ko jël di leen ko jox di ko jël di leen ko jox ba mu jeex bu jeexee xamuñu ni ñu def ñu jël sa sabaan ñu jël seen sabaan ñoom di indi ci sa sabaan ba nga dem sabaan kon war nañoo xool bu baax te fi mu toll nii réseaux sociaux yi boo ci demee gis bu ne ma wax ko rajo yi boo ci demee gis bu ko télé yi boo ci demee gis bu saaka sax dañ koy def ci rajo yi koo xam ne illégataire nga war a koo xam ne daaw ci Dakar màggalu modalité damaa wax ne am na mag ñu yoonu jël waroon nañ leen a jàngalaat éducation suñu def morale bi yooyu yëpp dañ leen ko dañ leen ko dañ leen war yu bari yi daanu ay mag yi jëmale woto ay gone boo demee ci kër yi wax ñu wax ci télé yi di ko wax ci rajo yi di ko wax ci fépp ay du ay gone ay mag yi jëmale mm-hmm. ah, kon jikko yu yàqu yoon bokk na ci li nga xam ne mën naa yóbbu nit sawar ëllëg yàlla sant na ma julli maa ngi julli sant na ma woor maa ngi woor sant na ma génn asaka maa ngi génn asaka waaye nag sama diggante ak doomu aadama yi nga xam ne yàlla daf bind euh, ni sa mbokkum jullit mu nekk tànka li nga yéene sa bopp yéene ko sa njaboot di ko doxee di ko jëfe di ko waxee yéene jooju demoo ko ci moom sa sa njaamu yàlla du nan kon dañoo war a xoolaat suñu bopp bu baax te jéem a bëggante te jéem a booloo waaye ñoo xam ni tey bu nit amee dara sa xol baa nga bax sans degré ah boo xoolee nit yéene ko ab sarax nga ne ah ay eh, eh, ndeysaan nangam ak nangam ah booy ko te te li may wax ñoo ngi koy dund am lu dul jeex nit dikk di la ñaan képp ñaar fukki dërëm wala fanweeri dërëm yoo xam da ko reere te wóor la ne loolu kii lor na ci te bokk ko joxee da nga am sarax waaye doo ko ko jox da bàyyi ba. benn waay jóge fee naa la nangam ak nangam di la tagg di la wax loo xam dara du ci dëgg di la maamale maam yoo xam duñ say maam di la dëkkale nii yow dëkkul nga jël xaalis boobee jox ko te yaa ngi romb waaju xiif sëñ Fary Mamar bi xam si tey waa ji waxee ni ñëpp xam nañ ko son excellence président Macky Sall ma booleeg délégation bu mat bi ndax li ko matal mooy ñi ko ñi ko composé ki ci njëkk mooy le préfet Makan Mbeng boo xam si war naa ko mën a féliciter au nom président de la République parce que li ngeen wax wane na ni nekk na ci war a nekk parce que l'administration doit être au service des citoyens soxla yi nit ñi fi bàyyi kon bu ngeen ca nekkee nit ñi wax ko président bu nekkoon fi dal félicité kon war naa la ci mën a félicité teg ci le sous-préfet Ibrahima Sarr ak son adjoint teg ci tous les autres officiels muy parlementaires yi je commence par le parlementaire international qui le président Moussa Fassissé président du parlement de la CEDEAO effectivement le président du groupe parlementaire du groupe Bokk Yaakaar bi Aymérou Gningue bëggoon na fi teew teewul mais yabal na délégation teg ci Serigne Fallou Fall ambassadeur itinérant les hommes politiques incarnés par le maire Ngouda Ciss Nga Diouf ci sa wet dëkku maam Gati Ngaraaf kàddu mën naa koo tënk ci ñeent bi ci njëkk mooy nuyoo ziar sakku ñaan ñaareel bi dinaa wax ci dëkk bi ñetteel bi dinaa wax ci xew bi président effectivement ñu ngi yónnee nuyoo ziar sakku ñaan tàmbalee ko fu mu ko war a tàmbalee sëñ Murtala moo la ko joxoon te jaar muy sëñ Sidi Moxtaar du la neex. donc dama koy tàmbalee si Sidi Mokhtar mi nga xam si moo fi sëñ Touba du ci wax te du ñu gis la te sëñ Cheikh wax sëñ Ba sëñ Cheikh la li mu wax firndeel na yow sëñ Cheikh la nga teewal ko fi loolu lu important la parce que man yëgguma ko fu ma ko mën a teewale ndax bala ko mën a teewal deret moo koy def te bokku mu dara donc yow moom nga fi teewal man président de la République moo ko teewal te wolof nee na loo judduwaale moo ëpp lu la dab yow da ngaa judd sëriñ bi man maa ba cinquante six ans ñu naan monsieur le ministre donc sëriñ bi ministre ba teg ci sëriñ Mouhamad Ali Bakri moom sëriñ Moutala teg teg ci suma xam nga sama doomu nijaay la xam nga sama doomu bàjjen sëriñ Abdou teg ci sama rakk waa kër sëriñ Mame yi gis ci sëriñ Bassirou sëñ bi sëñ sëñ maa ngi leen di nuyu ak sëñ Mame Thierno di nuyu nag waa sëñ Tuubaa yi fi nekk yëpp waa Touba waa Darou Mousty waa Darou Manane di nuyu sa taalibe yëpp ba ci eh, soxna yi toog yow nag dama lay nuyu mais dama lay sant lu tax lay sant ndax bu ma ñëwee fii tey. dangaa xam lu la war a def ko ndax gouvernement bi mënuñu am ku tudd maam Thierno dëkk karale nga màggal ñu fa indi keneen ku dul moom donc sama ñëw bi yow donc vraiment président moom mu ngi leen di nuyu mi ngi leen di ziar mi ngi leen sàkkloo ñaan ñeen ñëpp xeebul ñaanu kenn te li mu leen di ñaanloo mooy ngeen ñaanal ko ba li yéenam ci réew mi mu mën koo def te wolof dañu bala nga ni naam def li bëgg bala mu ko mën a def dafay nekk donc loolu moo doon nuyu bi ak ziar bi ak ñaan bi damay wax ci dëkk bi dëkk bi ne boo ko bëggee wax da ngay xool ni mu tudd yaa ngi ni gàdd yàlla gàdd ku ne xam na ni dëkkub naar la wala quartier naar gars yi dañuy naari kajoor ma ni kajoor amuli naar da ngeen di yàqi wax ay dar man ko lu ko indi mooy njëkk dar yonent bi donc ñii ci seen ci yonent ba leen jóge téewul donc si amar ndax dañuy amar ni saadi ni tàndine ni gumbala ni baabu ni turee ni jaxum xëy na am na ma fàtte sax waaye tur yooyu boo ko limee bëgg dëkk bëgg dem dëkk yu nekk Sénégal nga xam ne ñu ngi ñëpp Sénégal ñu ngi fépp Sénégal foo dem fekk leen te dëkk boo demit mën nañoo xam seen màndarga danañ jàng alxuraan danañ julli danañ jaamu suñu borom danañ liggéey di pour tedd waaye nag doon ay murid wér a boo demee Kaolack ku ne xam ne maam den gumba la nga dem Mbacké ñoo fa nekk nga dem Ziguinchor nga nekk ñoo fa nekk nga dem Tamba ñoo fa nekk donc turu gàdd bi loolu moo ko indi léegi laa leen gàdd kese gàdd képp amul gàdd boo gis boo dégg am na lu ci topp gàdd yàlla gàdd bitu gàdd mbaraama gàdd coor donc gàdd boo gis rek am na dégg bu fekkoo gàdd gi yàlla fekkoo bu ñu nee yàlla man yàlla laa ndax boo toppee suñu cosaan ci géographique maanaam dëkk yi su weer boo njëkk njokk topp ci gët garaaf topp ci njaarga topp ci xawlu kaw topp ci xawlu suuf topp ci kër galo ba kër bàkkat ak yaay sëñ bii du kii Oumy Ndiaye mi ñu aw turam la mi ngi ci biir kër gi donc fii bu ma fi ñëwee bu may wax duñu ma sàdd ma jàng li ma xam laay wax te lu xew tey boo ko bëggee xam da ngay interroger démb man samay maam Fuuta lañ jóge woon Moussa Boré ko Kumba Sall am ci ñëw yàlla Kumba Sall bu sant gëdd gaaf ñëw yàlla bu sant Kumba Sall jël Omal Sall am ci Moussa Omal kooku jël Yaasin Daw Seydou am ci daw moom Seck Ndiaga décembre Seck xawlu baa ngi sant kër baax te lii moom ñi ñoo ànd loolu yëpp donc population boobu yëpp tey ñu ci bëree bëri bu ñu xamee sëñ Tuubaa nekk ay murit nekk ay jullit ñii ñoo leen ko jàngal donc dëkk bi tur bi képp boo ko xamee toj ko di xam fu dëkk bi toll ci Sénégal Gadeyelle mooy senegal ndax tur ba ma tudd yëpp foo dem Sénégal fekk leen fi nañ fay nekk ay royukaay lañuy ñuy doon ñu ànd ak mbaakol te mbaakol famille Moussa Mboré famille bi ci gën a yaatu la ñu ànd kook ñoom yàlla mooy Sénégal donc loolu laa bëggoon wax ci dëkk bi pour nit ñi xam ni waxin dafa am solo te waxin bi li mu solo tey ñu bëree bëri boo doon ñu indi taat gàddu yàlla xamuñu ko gàddu yàlla mooy gàddu ga ca yàlla. Kajoor amul i naar seen tur parce que darmanko yonent ngeen seen maam yi tubaab te man loolu man laa ci témoin ba ma nekk gul ministre nga xam saa boo ñëwee fekk ma ci wetam boo ñëwee di ak moom dina la dal dal moom daanaka lu mu la lay def ndax loolu xamul fu mu jóge te sëñ bi dinaa leen jàngale ci leen ci moom lu démb waroon woon du ko def tey noo gis mu mel ni tey waa mu def ko tey démb ko fu mu la teg fa sëñ Tuubaa tegoon sa ba sa waajur foofu la la teg heureusement bi ñu ko matee ndax li nga ko matee ci laay tëral wax wax ko ci tax que ci xew yi lay wax xew bi boo ko bëggee xam da ngay xam na meloon démb ak fi mu nekk si dañuy cinquante neuvième édition man cinquante six ans la am kon xew Bambey gi magee na ma ñetti at màggal li kiy wax sëñ Fari bi amal bokk na ci tax màggal sëñ Saare Mamar ñëpp xamoon nañ ni wu mat sëkk la avant muy nekk sëñ Tuubaa te wàllu gi ci Darmanko ga la ko jëlee parce que ñoom ce sont des descendants du prophète loolu moo di tuddam Darmanko donc sëñ Saare Mamar loolu mu dare woon sëñ Tuubaa ba may ko lépp ndax mënoo nekk wàllu nekk cosaanu yonent bi xam loolu ci bopp boo demee wuti keneen da lay wóor ni kooku moo la ëppalee kon sëñ Bara Mamadou dafa nangu sëñ Tuubaa gëm ko moo ko may li mu am moo ñëw fi ba tey mu ngi tàmbalee sëñ Gumba ñëw sëñ Fallu ba ak sëñ Butala donc loolu yëpp message bi ñu ciy joxee mooy senegal boo ko bëggee yor il faut nga xam ne mu tëddee te tëddiinu tey cosaan ko waral boo ñëwee tey fii gàddeel man wax naa ko léegi xam nga tey jox nga nu berne boo xam te ñëpp a xam mais hmm. man 1969 laa dugg école ñaaxee 70 laa tàmbalee ñëw fii ci gàmmu gi boobu noonu gàmmu gàddu leen donc lañ ci doon jàpp mooy cere ji moo tax tey bu ñëwee gisuma cere ji dama xaw a am sax déception donc kooku daan daw di wut cere ji bu jamono doxee doxu dox ba su borom la ko mu ñëw di ministre dala waxal lii loolu itam ak yokkute la ci yow. donc loolu yëpp dama koy wax pour conclure ni man dañ ma fa yónni wax loo waaye ka ma yónni bu ma demee war naa ko wax dara te ba nee moo xay moom dana gën nga xam gën a xam gàddi te bu ko gënee xam gën a jàpp gàddi yar njariñam dong lay doon te li li war a développement dëkk bi dinaa ko wax te li ci gën mooy ñëw gi yoon ndax li ma gis fi tey jàngukaay la man de en tout cas jàng naa fi lu bëree bëree bëri te xew bu mel nii bu amee ñëpp dañ ko war a xam ñu war a ñëw ñëpp te man loolu mooy sama responsabilité defe naa ni bu ma demee te waxuma ko li ma fi gis ak li ko fi war defuma la ma war te bu ma demee li ko fi war li ma yaakaar ni moo ko fi war dinaa ko dinaa ko wax dinaa fexe tam ba mu gën a xam dëkk bi ba ëpp ci yéenee ndax moom loolu mooy njëriñam ndax fii mooy symbiose Sénégal tubaab bi ne symbiose mooy li ñëpp def li ñëpp daje donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen yëgal ni moo fi ñëwee sëñ Moutala moo ko bëggal boppam te li leen ni man dama jàngale fu ne laay jàngale dem naa fa waaye gisaguma ñaar gisuma ku ma ko gën a mbokkam gisaguma lu féete kaw sëñ Tuubaa moo tax maa ngi ànd ak sama mbokk fu ma nekk doon bu wér nangu ko ñëwee ci rëglu ko ci maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ci dëgg mën a lu ci lu ci jub te yéene président de la république ak si Mourtalla ak si Seydou si Mokhtar jërëjëf. jërëjëf sëñ Diaga xam naa li ngay wax lépp yow lu baax rek la waaye xanaa jotaay bu yàgg bi rek waaye yow xamoo lu dul sëñ Mor Fari bi bëggul lu dul sëñ Mor Fari bi te li nga ci wax lépp it lu amal njëriñ la.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 ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam kenn ku it ñu lay wàcce sa wàccukaay yi tey jéggulu ñëpp tey ñaan yàlla yàlla na jéggal ñëpp te jéggal ko kon jataay bi mi ngi jëm ci mujj gi déglu nañu kàddu yi fi jaar mooy ñoom Serigne Khadim ak Serigne Ben ñoom dégg nañu alxaaji Bumba seen waxam dégg nañu suñu xarit président Moustapha Cissé Lo li muy wax. historique lu amoon bu yàgg lay nettali di rafetlu kàddu yooyu waaye di gërëm seen Cheikh Bara ci kàdd yi nga xam ne joxe na fi ay cours yoo xam ne ku ne mën na ci jëriñ ndax li mu wax boo ko xasee wax ci ndaje ji si rek wax nga lépp di gërëm nag tey lu kàddu yi ministre Mame Thierno Dieng wax moo tax nit ki fa mu dëkk dañu ahlu Makka ñoo gën a xam xuri Makka ahlu Makka ñoo gën a xam xuri Makka dëgg la moo tax tardé def ko ministre suñu dëkk ak moom fii su fi ñëwee dana fi wax luñ mën a dégg waaye ñu may ma rek tuuti ma gërëm dawaayir yi ci biir réew mi ak biti réew mi yëpp di leen wax ni seen liggéey àtte na yéen ñëpp ñenn ñu ñu ko daan jaarale ba muy agsi nañu xam ne seen liggéey assi la ci teewaay yi ñu teew joxe ko ci seen bopp ak ñi nga xam ne ñu ko yónnee ñëpp assi la ñoom nag dinaa wax ak ñoom ca kanam ay dama bëgg ñu xam ne fàtte wuñ leen ndax dafa am dolli bu ci daayira taalibe kër gi jamono indi ko mën na dem ba mel ne dañ leen a muur mooy ansaaru gàddiyel li taawuni alal birri wa taqwa ndaw yu ne ñoom ay ansaar lañu waaye dañuy jël seen boolu dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla fekkee nag ak développement ndaw yi ci des di ay étudiants xool leen ba yàgg ñu ne leen ñun nag dañuy jàng mënaguloo lu ñu joxe waaye ñun ñoo tudd benn association lañu yor boo xam ne lépp lu ñu mën danañ ko def mu am ñoo xam ne benn wax na ko léegi ñu jàng nga ci ñu jàngaloon ci ay commerçant nga ay lépp nga ay béykat nga ca waaye fu ñu mën a nekk ci biir gox adduna bi dañoo lancé benn ci rek ne gàddu yàlla bokk may leen lu ngeen si jublu ñu ne bu leen nan ci bokk moo wax la ne loolu ba léegi effectif bi mu dool ci biir réew mi ak biti réew mi mënuma laa wax mu toll ndax dëkk bii li ci soqi ko ëpp na fanweeri dëkk. ci laay wax ni ko alaaji bu ma waxee it li ñu ne sabaaru dugub foo ko daaneel mu rus fa ñi doon wàcc ci dëkk bii te mu tudd leen ne leen mat nañuy gàññ ñooñee bàyyi nañ fi Ousmane a jëriñoo waaye borom pas-pas bi doon liggéeyal yàlla it def na lu tax mu man loolu kon ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax di fàttaliku sëriñ gumba di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko leer ak way juróom ak ña leen meññ ñépp waaye nekk gi fi nekkoon day man day ci laay door a xame ne ndekete ku tëdd fa mburu tëdd da xam moom demee moo am sama mag yoo xam ne moo ma tasloo woon Serigne Fadilou ànd ak man guddi ànd ak man bëccëg te moom jox na ma màggal gi sax te génnul àdduna mooy li ñuy wax ne ku wóolu sa ndono dem du muy tàggoog man ci hôpital mag soxna Fati daf ma ne boo amul fit doo dem soo nanguwul a ñàkk doo dem sooy xaar ku la dimbali da nga taxaw yërëm naa la nag ma ne ko waaye ñaanal ma rek yërmaande ko ko am ci nit boo ko ñaanalee mu dal ko ñu def màggal gi dellu si bu ne soxna Fatou nu màggal gi demee mu ne ko nem mel musu nem mu ne kon sama xol na bis ba ca topp boobu dellu si la génn àdduna ma fi wutu ameel naa leen njukkal moo tax bi weer bi teroo ba léegi ñi ngi jàng ay kaamil am na daara yu ma sàmm xuma ñi jàng nañ juróom-ñaari am na ñoo xam ne nii ñu ngi cere ba jàng nañu juróom benn kaamil fii la ñu ci dëkk bi démb ci jumaa ji ajjuma ji takkusaan ba timis nañu fi jàng ci ay kaamil ci daara yi wër réew mi kenn xamul mu toll loolu yëpp ñu defaat xam ne ñoom lañ fi wóotu ndax nag ñoom mënatuñoo dellu si waat fii ci àdduna liggéey nañu nag waaye ba tey soxla nañ ñaan te ñaan gi ëppale wuñu leen ci ndax Sëriñ Tuubaa moo wax ne idi duaa yanfau maytan fi lqubur wa yanfau lxaya wa yujibu ujur ñaanal ko fi jógee baax na ndax dina ci jot te dana am bonus buy del siwaat ci yow boo xam ne boo ci jotee mu mën de pass kon yàlla yàlla fayandu leen te barke li ñu fi bàyyi te ñu takk ci man dama am ci ñoom yaakaar lool ndax dafa xew dafa am lu xew léegi te xewut fii xam nga yoonu murit xamul làng dañuy làng di dox yoonu murit xamu ko yoonu murit li mu xam mooy toppal ci sama gannaaw rek bis bu ñu làngee ci Sëriñ Murtada rek àdduna tukki nan topp ci moom rek ndax kim fi wutu lañ ko waxoon muy dëgg wa maa aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafqul wara fi suqihi wa masaa'ihi boo ko alal ba xool boo ko ba kilifa ba xool na ko ba yàgg mu ne ko ñëpp de d'accord nañ ne amoon ayib waaye man de gis naa sa ayib ñu ne ko loolu lu mu doon mu ne amul benn ayib bu dul illa ibadatu rabbihi jaamu boromam ak jëriñ bindee fii suba ngoon bu ñu la nee nag kuy jëriñ bi suba la suba ngoon man nees na ko dégg ndax foofu dem rek mu demee nii ndimbal la mu fa agsi ba tax na njëriñ la doon def nit ñi waaye musule na lool wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fi lbarri wal bahri da nafin bila darari yàlla dimbali na ma ba dinaa def dinaa jox nit ñi ndimbal yàlla dimbali na ma bii def topp nañ ma waaye njëriñ rekk laa leen amee waaye amaluma leen lor waaye mu am nag lu mat bàyyi xel muy sew sew boo xam ne waxoon na ko daf ni woon wal takfini ada jamia al alamin wal takfihim ada ya rabbi amin yàlla yal na ma fegal looy bindee fii ci man bindee fi seeni lor ci man yàlla na ma ko fegal waaye yàlla na ma dimbali ba bu ma leen lor xoolal fi mu jaar ma ba noppi di di di moytu loolu kon yàlla na ko yàlla fayal ñu gërëm nag kilifa déggee yi fi teew yëpp ndax fii kat lu ne xew na fi waaye lu baax rek a fi doon xew sëñ si di Maxtaar fi nekk nag nan ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér ndax ñun loolu mooy sunu warugar ci moom ak mu digal lu ñu def ak mu tere lu ñu bàyyi ak mu jox ko suñ alal mu liggéeyale ko Sëriñ Tuuba amatul leneen lu war sunu diggante moom te taalibe du wax nii laa gise wala naa laa gise wala naa laa gise fal ibnu chartun fi qabuli saan ndigal rek mooy sartu nangu mbir président Cicero wax na ci moom lu bari léegi waaye yàlla xam ne koo gis àdduna bépp yëngu mu dal bàyyi ko xel te Serigne Sidi Maxtaar ñëw na ci jamono boo xam ne wax daa xew mu indi noppi te wax wax la noppi wax la mu ñëw ci jamono joo xam ne dañuy bàkku mu ñëw indi tawaadoo te wax lu rek ba boo ko gisee da ngay defee ne sax moom xanaa du xewlu ku mel noonu mat na bàyyi xel bu loolu jàllee nag mooy gërëm ni ko njaboot gi waxee loolu tàmbali ci président de la république jaar ci premier ministre jaar ci Aliou Ndiaye suñu xarit waaye nag ñoom itam ci gouverneur de la région Ahmed si ak HUM ak suñu préfet département ak sous préfet ak seeni HUM ma xam ne daal ñii daal ni ñuy joxee ngëm dalal na xel ci diggante nit ak mu yilif mu am nag tegedaay lu ci am mooy tànn gi ñu tànnal sunu doom def ko ministre ñu war a yónnee délégation xam naa ko ne xalaat na waaye xalaat naa ne jekk na ci mu teewal fi président de la république loolu man xalaat naa ko te bi ma ko xalaatee bi mu sottee ñëpp xam na ne rafet na man na nekk ndax suñu bokk ci kuloor yi dañuy wax ne jëflante koo mas a xam moo gën koo xamul donte lee dafa mas a rey koo xam moo gën jëflante koo xamul administration moom xam nañ ko waaye ki mu ñu yónnee mu xam nu loolu mooy problème bi ñun xam naa ne administration moom digalam def la ak santaane ak digle ak tere ak ñu bàyyi kooku xam nañ ko ci dooleem waaye ndax ki nga ñu yónnee dana lu xam loolu moom soxla nañ ko ndax bala ñuy lijjanti ñu nuy xam ak ñu lay xam ak yu demee noonu day jël ay temps yu bari te jamono bi dafay dafa dafa yàkkamti amatuñu temps boobu kon maa ngi koy sant di ko ci loolu di ko ci ñaanal yàlla ndax kat nit moom man lam yaskuri naas lam yas man lam yaskuri naas lam yaskuri la ku santul yàlla doo sant ni waaye nag laaj na ñu wax ci réew mi ak tolluwaay yi ndax jàmm dafa am solo ci réew dañu ne nit mën na taal safara waaye du xam fu muy àtte te man gis naa ne Sénégal li ñuy tudde dialogue bi ak wax ji yëpp mel na ne dialogue nga am ndax kenn ku yaa ngi expérimenté di wax li nga bëgg di wax li nga xalaat ci télévision yi ak rajo ma defe ne kon li ci des ak jataay moo ko mën a mottali te nag buñ bëggee dimbali suñu bopp dimbali réew mi ay élection ci la ñuy tànn kilifa bu yor réew mi lépp lu mën a doon mën koo dox waxtaanee ko ba bu ñu tee yeggee ñu mën koo def jàmm am waaye nag nit ñi dañu xàmmewul ixtiraaq ak ixtilaaf ixtilaaf mooy nii laa gise kii di nii laa gise ixtilaaf nag mooy duñu mën a ànd mukk loolu nag baaxul ci réew loolu baaxul ci réew ndax kat léeg-léeg nga daan dégg ñu naan kilifa diine yal yàlla tàppe seen i xol moom la ñoom bu seen i xol tàppe na bu yàgg waaye kilifa politicien yi yal na yàlla tàppe seen xol bokk te war wax loolu léegi parce que coow li ci ñoom la dese waaye desee tuur ci noonu kon yal yàlla tàppe seen xol ba ngeen nekk benn yéen yéen tam tax jaar nañu ñaanal leen ko ndax nag boo gisee nit ñuy ñaan loolu dafa fekk ne bari na koo xam ne bu problème amee mu génn bàyyi ñoom yooyu te ñun mënuñoo toxu nit nag bu mënta toxu luy wax jàmm rek la war a wax ak luy wax bennoo ndax kat kër yi bu amee ñi ngeen fi gis ñëpp buñ leen wooyee ñu ñëw te lu ñu ko waaye bu jàmm amul ñëpp sonn ñëpp ci kër gi ñuy bëgg a la ñuy bëgg a ci la ñuy bëgg a loolu bu boobaa duñ ko am na ñoo xam ne jafe jooju bu amee dañuy taal seen adduna dem ba ci ñu fi kon nag ñun jàmm la ñuy wax jàmm la ñuy dox moom lañ bëgg ci réew mi kon maa ngi ñaan njiitu réew mi woote bi muy woote muy woote bennoo toog ak waxtaan ñu ngi koy ñaan mu continuer ci loolu waaye maa ngi ñaan itam ñi ñuy woo ñu bokk daje parce que suñu kilifa bu mag di Serigne Cheikh Amadou Mbacke am na benn bis ku mu doon waxal mu ne ko da ngaa demul ci réunion ba mu ne ko demuma ci de mu ne ko lu tax mu ne gars yi mu ne ko boo fi toogee bañ wax ba tënk la tënk d' accord ma tudd sax kon nit lu mu bëgg a bokk da dem wax ci xalaatam ndax fi mu toll lii mu doon def léegi daaw dem nañu bay waxtaanee ad diin wal iqtisaadiya diine ak économie. yàlla yàlla def jàmm ci réew mi di ñaan yàlla président de la yàlla gën ko dooleel gën ko dolli xel gën ko dolli muñ ndax sama xalifa bi nekkoon ci sëñ Bouba boo ko daan wax ne réew mi déexu réew mi ne mu ne bu leen dooleel ñi am kër sax am nañu problème waxuma laa ko mu ne ñu yenu kër yi am nañ problème kon ñu yenu réew yi taxul ñuy wax kon nag luy indi jàmm moom la ñaan te Sëriñ Tuubaa nee na jàmm xaw ma lu ko gën fii xaw lu ko gën fële te taawanu ala birri wa taqwa loolu yàlla wax na ngeen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla waaye wala taawanu ala ismi wal udwan loolu yàlla sant ko kenn te ñetti inna laa yi fekk nit ñi comprendre ñu ko jàmm lu am inna laa maa sabirina yàlla nee ñi ma àndal mooy ñi muñ waaye léegi bu la dara xewee koo àndal moo la naan bu la buum la ëpp fula ëpp la xaalis ëpp lay pexe bala laa fontoo fexeel ba tëj ko loolu nañ ko bàyyi amul njëriñ muñal muñal dëgg-dëgg muñal kii lii mu la def da koo xamut waaye muñal ko rek kon ina la sëñ Tuubaa ne kon muñ moomu ba ma xasee ba ma ba ma tàmbalee fajeg tooñ muñ yàlla fay ma fayul ma boobaag tey fajatuma tooñ lu dul muñ ñu ne waaw ba ci topp lan la inna la ala yahdi kaydal xaahinin yàlla nee na du ma dugal mukk pexem koy war yàllaa ko wax de man waxuma woon ci leneen yàllaa wax ne du ma mukk pexem koy war kon nit ki li muy wax da koo gëm da koo war a gëm ba mu waxee nga xam ne lii mu wax mooy dëgg ci moom waaye nag inna allaha laa yudii'u ajra al muhsinin yàlla nee na du ma sànq mukk yoolu koy rafetal kon maa ngi woon nit ñi ci ñu rafetal maa ngi woon nit ñi ci ñu bennoo maa ngi woon nit ñi ci ñu diisoo te wa shaawirhum fil fa iza azamta fa tawakkal ala nit nag booy wootee lu mel ni jalaw da ngay ji ñëpp wax leen guddi su ñu demee ba nag nit ñi gàntu loolu fa tawakkal ala allah nga wakkilu ci yàlla te xam ne yàlla mooy buur bi alxuraan a traité alxuraan nenu bu xew-xew réeroo amee day famit ku góor nañu toog famit ku jigéen toog in yurida islaahan yuwaafiq laa baynahuma insha bu ñuy toog rek yàlla yi di jëm waaye mbooloo moo xam ne kuréel la nga ëmb ci biir jataay boo ko waxee bala ngaa d' accord da ngay dellu joxaat kenn keneen contrat bi mu waxaat la ne nga doon ñëw loolu mënut a sottal mbir wa ma zalika ala llahi bi aziz sang yi maa ngi leen di ziar di leen jégalu di nuyu monsieur le di nuyu le préfet di nuyu sous préfet di nuyu sama xarit président Cissé Lo di nuyu këru diine yi fi toog yëpp Thiénaba ñëw na Ndiassane Niwane ñëw na Pire ñëw na kër euh, El Hadj Thierno ñëw na Sénégal gi yëpp ñoo fi daje dëkk boo xam ne nag bi ñu wàññee ci subaan léegi recensé naa lu mat 17 maires communes yu ñëw ci réew mi dikk di la sargal seen màggal. waaw kon léegi bi may wax loolu rek 17 maires de commune ñëw nañ fi ci subaan léegi. dix-huitième baa ngi nii Abdou Mbacké Ndaw maire Mbacké Bawol délégation Abdou Lahad te ci dix-septième yi moom lim ci la bokk Ngagne Diop moo ko jiite ak Saliou Ka Mame Cheikh Ka kon xam nga loolu yëpp day wane ne réew mii ñu nekk dañ cee bokk waaye bokk gi nag du lu ñuy wax du lu ñuy tiitaloo dañoo topp ci ginnaaw Cheikh Sidi Mokhtar rek di déglu ndigal waaye la Cheikh Saliou Mbacké waxoon ni bu ngeen defee ne lii ngeen di doxal ne dama ciy xamul dara xam naa ci dara waaye bis bu ma ci war a wax dinaa ci wax mais xam naa ci dara bu ma amee ndigal dinaa ci wax waaye nag ndigal li ma am mooy kott kott yollu yollu ihdina siratal mustaqim siratal lazina anamta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin man ci woowu yoon lañ ma teg waaye dama doon barkeelu ci loolu rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ko ñun ñëpp déwén ñëpp daje fi déwén kenn manqué yal na yàlla guddal sa fan bi si loolu si wér ama sama baat daa dee waaye kon ma wax waaye damaa wax aw ma sama baat bi dee laa ngay wax amit kon di ko moom amin sëñ Sidi Mokhtar yàlla fi yàgg yàlla na yàlla guddal fanam àll yi bu ñu fekk maam bismillahi yal mulk bila